sans plus tarder damay jéema dugal le promoteur. Mhm. ah muy élément loo mu wax ñu fi ay leeral moom lay woo ni ah, ñu xool moom lan la ñu mën a wax si combat boobu parce que dimanche la diggante Petit ak euh, Brise de Mer ana Bukar Bukar wala Dembale bëggoon naa leen fii. Mhm. Ah, ñu ngi woo élément loo donc Mohamed. Mhm. Petit Brise de Mer dimanche. waaw ba gis naa information bi. comme mhm. quoi que ñu ne Brise de Mer dafa blessé. après ma gisaat euh, ñu benn vidéo bu circulé ñu naan dafay entraîné. waaw et que blessé wul. Mhm. bon je ne sais pas nag les tenants et les aboutissants mais. Mhm. je sais que euh, bëri na ay coow ak polémique. donc peut promoteur bi dina ki mën a indi ay leeral. wala encadrement Brise de Mer ci boppam. waaw donc combat bu neex lay doon. entre mm. deux révélations deux jeunes. Mm-hmm. yoo xamante ne nii vraiment Petit Lo ñëpp xam nañ ne. waaw euh, ci bu ci keppaaru Modou la nekk. Mm-hmm. donc euh, c'est un jeune boo xamante ne nii. Mm-hmm. Euh, depuis que bi muy def bi muy bi muy bëre ba léegi. dañuy gis muy muy muy topp ci ay tànku papam di Modou di indi état de forme bu bu baax. moom la ñuy gis si moom. donc Brise de Mer aussi nekk jeune nekk moromam. mu nar a nekk un très bon combat. Mm. demale Petit Lo Brise de Mer dimanche fële ci arène nationale. mais ay rumeur a ngi daw ne Brise Mer dafa blessé donc mu ñu ngi woo Elimane Lo pour mu ànd ñu si ay leeral mais ça sonne il ne prend pas lan nga wax Petit Lo Brise de Mer pour dimanche. mais ñoom naan naan ban dafa ñëwoon barki face to face. Mhm. bu en tout cas combat de jinne la. Mhm. parce que ñoom ñëpp ay technicien la. Brise de Mer doomu Caaroy ku mun bëree la. Mhm. Brise Mer numéro deux. il est très très fort. yaakaar naa ni dernier combat mook Cheikh Super jamono la woon. Hmm. est que du woon match nul. Hmm. wala Cheikh moo ko daan par décision. mais mbër la bi nga xamante ni il est trop trop technique peut-être hmm. mook Petit Lo. lu ñu bokk moom mooy seen taay. dañu xaaw a tolloo taay. xaw xaaw méngoo bëri mais Petit Lo dafa nekk ci keppaaru Modou Lo mu am sens di jege Modou Lo di am expérience Modou Lo du am fit Modou Lo di am façon de bëri Modou Lo. loolu moo en tout cas tant que Modou Lo est en activité. Petit Lo il reste un lutteur très voilà mais mu ngi daje ak bëreekat nga hmm. xamante ni si tefes lay entraîné. Hmm. caaroy parce que fa lañ dëkk. mën na bëre trop donc hmm. combat de jinne la. combat de technicien la. yoo xam nga ñaari mbëri paka la. Petit Lo ak Brise de Mer 2. waaw Brise de Mer. xam naa ko même Petit Lo tamit xam naa ko. waaw ñoom ñaar. booy xool seen taay benn lañu. te combat la nag combat bu neex la combat jànk la. combat jànk la. te Brise de Mer combat mujj bi moo seex super étoile la bëri nañ bëri bit mais si diggante bi daa mel ne na fi combat ba daan. waaw te Petit tamit moo si dynamique victoire. yu am mm-hmm. doole booy xool. waaw mm-hmm. kon lamb gi daal mun naa ne lamb la daal. lamb la cinquante cinquante la. cinquante cinquante ku nekk mun naa daan. Petit Lo coow li bëri na si moom. waaw c'est koy def champion. c'est normal nag. Uh-huh. doomu mbër la. doomu mbër la doomu mbër. coow bi day bëri. day bëri bu baax. nekk roi des arènes. tollu ni gaay na gaay nag. joomal na mooy bi yàlla la. la moo la impressionné si Petit Lo. waaw non moom champion la. Mhm. te aussi tamit déggal na ay magam. déggal na papaam. foo gis chaque jour moo ngi leen jege subaab ngoon guddeeg bëccëg. dëgg euh, champion boo bëggee doon champion il faut nga jege ay mag. te moom am na mag yoo xam ne jege nañ ko ñoo koy jàppale si côté yëpp. Hmm. kon li des moom la quoi. dëgg moom la kon xam nga ñaari xale yooyu. Petit Lo am Brise de Mer ñoom ñooy bëri dimanche. Petit Lo Petit moom je le euh, dinaa ko gis. si si wetu Modou Lo. Hmm. mais Brise de Mer moom je ko ne pas. te xam nga pour nga juger ñaari athlète. waaw il faut nga leen di tàggat wala ngay assister seen entraînement. parce que nga ñëw rek xool ñaari athlète nii nga ne kii moo war a daan kii mooy favori. Mm-hmm. loolu c'est un problème. Mm-hmm. bon en tout cas daal comme li nga wax kii wax euh, Petit Lo mi ci kanamu roi des arènes. psychologiquement il est fort. Mm-hmm. loolu doo mun naa loolu daal xam naa ni. parce que il a une confiance boo xam ni. ah ci roi des arènes la koy jëlee. waaw donc psychologiquement moom il est confiant. il ah, mais je ne connais pas parce que balaa nga juger nit rek. waaw. nga nga di ko tàggat. waaw wala ngay assister entraînement nga mën a xam ci mm-hmm. état de forme état de forme voilà d' accord. bu ñu jógee foofu toujours sunu lam ñu ne le choc euh, Assane Ndiaye fête ses vingt ans dans l'arène avec le choc Moussa Ndoye guy Gui le vingt sept juillet. Assane Ndiaye combat de titan de feu. waaw ah. di ko féliciter. Mm-hmm. parce que Assane Ndiaye doyen la si làmb. vingt ans moom du vingt ans du benn fan. Mhm. du du du waaw Assane am na mérite bu baax. Mhm. tëgg na événement façon bu nekk. Mhm. donc invité ko avant son événement. il faut nga invité ko. mu ñëw waxtaan si ces vingt ans la. demoon na benn xaaw tëgg sax combat royal. Mm-hmm. mooy bombardier Eumeu Sène. mu amoon tolof tolof. Mm-hmm. ba Thialis ñoo récupéré combat tëgg na fi ay lamb yi rëy rëy rëy. Assane Ndiaye demoon mm-hmm. na le nekk le roi de stadium Iba Mar Diop. les Américains ñoo topp ko pour jël place bi. ndax fu Assane Ndiaye tolloon. lu mu organiser mu réussir ko. donc mu ngi maye combat bu am solo nag. Euh, mbay guy gi mu nekk sa mbër nag. parce que euh, bu ñuy waxtaan sa lu bëri da ngay wax ay qualité mbay guy gi mais mu ngi dajee ku ëpp ku ko ku ko sut si expérience. Euh, ku ko dàq bëre nag Moussa Ndoye Moussa Ndoye man dama yaakaar ni parfois fit bi dee gis mais bu la ñemee moo la mën. waaw mais comme bi gis naa si mu jël si volume est-ce que volume bi ànd na ak hmm. dooleem. Mm-hmm. est-ce que volume bi ànd nag puissance am ànd nag doole parce que gis naa ko mu def benn yëmbal cagi waaw waaw enchaîné ko ah ok ku def loolu si poids lourd rek waaw ah, yaa ngi yaa effectivement mm-hmm. donc entraîné nag te loolu lu koy may xam naa ni liggéey si tefes bi si la bokk mooy mm-hmm. lu moo jàmbaar moo wóos njàmbaar uh-huh. donc yarax ñi ngi amaat beneen dynamique bu bees dañoo juboo seen biir même bu dee bokkuñu écurie parce que am na ñu nekk Mbiita Ndiaye ñu nekk ab Ablaye Jënd yara ñi nekk euh, beneen écurie bi askanu yaraax mm. donc ñu ngi ñu booloo mm. di entraîner ndoo nekk benn cent pour cent yaraax bi mm. te Moussa Ndoye nag euh, ku am expérience bu la ñemee di nga gis bëre mm-hmm. parce que moom bi muy bëree ak Alioune Seye 2 gis nga nu mu meloon presque plus de dix minutes quinze minutes bëree intense xeex bëree technique donc ku mën a bëree mais mbay guy gi nekk si benn dynamique bu doy waar am jàppale ginnaaw tafaatinte bawol mbay guy gi la waa bawol gën a am confiance mm-hmm. ndaxte am na gabari bi ba pare euh, kii am bi am na sañ-sañ bi te mm-hmm. combat bi te mu ngi màgg si xel di màgg ci bëre di màgg si doole mm-hmm. combat bu neex a neexoon ko. waaw on va assister à une très très alléchante affiche. te yaakaar naa ni amateurs yi dañ kontaan donc Assane Dia nii la mu samel il les combats mm. intéressants. te ay affiche yu alléchante. waaw yaa Valdo Boy Dakar. Valdo Boy Dakar Boy Dakar dafa mel ni dafa waaji woon ma Maroc la woon ah, fan. maa gis dem muy de vidéo mu ne gars yi nañ ko teeru. aéroport wala rond point Zedo. Mm. donc dem na uti ji doole la wax. Mm. mu ngi mu ngi bëree ki mën a bëree. Mm. ki tardé nag ndax ah, problème adversaire muy Valdo. Valdo 2009 drapeau du chef de l' état moo jëloon drapeau bi Pakala yaa ngi fi woon Louga. waaw ah, jëloon na ko si eh, si catégorie am. waaw moom moo nekkoon champion. ma découvrir ko foofu ñu naan ko Jibril Ndong hmm. après si lañ découvrir la ko bul faaleel nekk hmm. donc mën bëre la ko tardé waaw si làmb si làmb ah. parce que ma Ahmed Deme moo gën a xaw a yàqu dañ oh, kon si covid bi combat bu mujjee yàgg bu yàqu bu yàgg donc loolu ko laay joxoon ko fii pour oh. combat Modou Lo ama bi amul amul dëgg la xam nga ay yu mel noonu ñoo ko tardé mais gis naa fa Kaw Cissé xaw kan la ciy bëri Kaw hmm. Cissé Kaw Cissé mook benn numéro Farouz ah, nag jël na jël na mbër bu mbër bu nam ndam nag. parce que mm-hmm. dafa jóge si si góor gi étudiant la. daan daan. Mm-hmm. bi mu ko daanee nag avant boobu kasoo la nekkoon nag. Mm-hmm. tumuranke foofu ay weer. ñu moo deux ans xam nga. donc fu mu toll ni lamb da koo bëgg a teewaat comme ni mu ko teewoon ci départ en tout cas euh, foo Rouge nag am na adversaire am na adversaire loolu moo ñu permettre ñu dugal euh, le régulateur de l' émission am naa dafa biddanti waaw yow ba pare dembale ñëw fii rek ñëw jékki-jékki rek ni juux ma ne ko jeudi nga fii ñëw ak vendredi moom mu ñëw fi mercredi moom xam naa ne lii xam naa dem da nga guddee woon fii émission bi à vainqueur des arènes ko doon seetaan c' était bien félicitations di la di la ziar merci bien grand bi maa ngi lay nuyu a baax. nga fekk fi Pakala ak Insa Diop le coach en MMA. Insa Diop. Mhm. ñu ngi nuyu baax a baax a baax di MMA mhm. Sénégal. Mhm. Euh, di nuyu doyen Dembélé di nuyu suñu euh, le grand champion bi Pakala nga xam ne moom tam vraiment. jàmbaar la ndaanaan la il a fait ses beaux jours vraiment. mais li dal malheureusement mbër yu bëri rek. dañuy peine pour am combat. souvent li rek booy bëri di daan wala nga nekk champion. gars yi duñ la ñeme mais ñu koy nuyu baax a baax di ko ziar di nuyu Insa Diop aussi. di nuyu ñoom moo arbitré ak Pape Sène waaw waaw waaw waaw waaw Lamine Sène Lamine Sène waaw di nuyu di nuyu rek maître Dame nga xam ne mm-hmm. keroog fekk naa ko saal ba jël ko mm-hmm. ak ak seen président bi aussi mm-hmm. Pape Demba aussi keroog sax ñëw na plateau ba vraiment waxtaan nañ lu yaatu en tout cas ñu lay nuyu bu baax a baax di la ziar nga fekkee ñuy traité sujet Mbaye Gouye Gui ak Moussa Ndoye le 27 juillet pour les vingt ans de Assane Ndiaye un combat choc un combat de feu combat bu ne ah. ah combat bu ne Assane Ndiaye vraiment il a juste xam nga lamb moom li mu wax à chaque fois rek yi Euh, souvent dañuy miser ci xaalis bi ba de trop ba des rek la tëgg li si des yëpp des fois xam nga mm. daanaka du nekk lu neex mais boo seetloo journée boobu tey mu ngi taay si nga sax mu ngi taay si nga siñu siñu siñu seet vraiment boo seetloo ak nga xamante ni tey mooy Boy Dakar mm-hmm. nga xam ne moom tam vraiment champion la ndaan benn défaite la am suma jumul par décision euh, arbitrale mm-hmm. di bëreeg Valdo Valdo kii xam na ko Valdo jamono yi koy wooy homme maa dandun mooy mm-hmm. waaw maanaam bu côté ndox bi mu ne maanaam dañ dem bañ koy woy foofu buur parce que jamono jooju mu ngi def ay brogadu poids léger que ne ku fa ñëwaan moom boo ñëwee doo mën a wax ba jël drapeau jamono jooju mook Moussa Yandé lañ doon tëkkale vraiment mu nekk champion nekk ndaana boo xamante dafa teg la ay victoire mhm. ñëw ba si diggante ma Garga 2 waaw mu ñàkk foofu noonu covid bi ñëw ay combat yu bëri yàqu ni nga ko waxee rek vraiment euh, mu ñëwaat nag def retour moom ak caatu caatu waalo ñu bëri combat bu métti hmm. kon yaakaar naa ne combat bu man mooy sama combat bay guy gi Moussa Ndoye nag vraiment bu neex la boo xamante ni tey li doyen dimbali wax aussi dama ko si fekk si rek Moussa Ndoye bu ñemee champion la mbër nag vraiment li doon tooñee benn mbër quoi ma man su ma nekkoon di tiit sax seen bi dem sax ma ne duggee si géew damay xaptal ma Moussa Ndoye quoi qu'on puisse champion la hmm. mën na mais souvent bu amee lu muy calculer si mbër rek des fois da koy handicapé quoi yaakaar naa ne mbër bu toll ni fi moom tey dem ba bërek ñoom Sa Thiès ñëw di wàccaat di bërek ñoom Mbaye Gouye Gui là problème kon day dafa war a ñëw mhm. confirmer suprématie waaye Mbaye Gouye aussi dafa am fu mu bëgg a dem jàppale ak booster moo tax tey mu dugg ci loo mu dugg nii tey mhm. kon kooku aussi day day ñëw teg bakkanam ay waay féexal sab xol ah original neexal bu te na gu original 100 pour ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën gaaw jëfandikoo. KPR transfert local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consomé ko.